am plaisir nag jàkkaarloo génn ci beneen entrechamp nee naa ko tey moom lii ma def yow donc ma ko defoon nag xaw ma kañ a kañ a génn di suñu mbokk taalibe wax dëgg di suñu xarit di ko jàmbaar di ko baax wax dëgg yàlla ñu gën ko xamee ci Alioune Mbaye ah mhm. di comédien bu mag waaye nag léegi nag attention <laughs> mouvement la yor comme ñëpp nag a ah. mhm. euh, Alioune Mbaye ñoo ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkeel bàyyi la nga nuyu ak ñu la censure bi pro ak bourgéwél waa tawakaltu alallah la hawla wala quwwata illa aoujibila bisimila inna waliyallah jërëjëfe Serigne Touba mhm. jëfe borom Touba jërëjëfe teeti Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mhm. gàcce ngalaama Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni mhm. di nuyu buur bu baax di jox sa wàcc waaye wax dëgg yàlla maa ko sàkku <laughs> ndax nee naa la Jibril Cissé di tax ñu ko doon coow paasu fadiga dong la waaw dëgg la kon am na ñoo xam ne ba wax ak ñoom macha allah day gën a inspiré ci yu bari moo tax ma sàkk woon ko parce que amul luy dugg sa site bi te ma ko man yàlla ma nattu du ma rek laay moo tax nga nekk nit ku ñu estimer nekkit koo xam ni source de motivation nga ci réew mi mhm. li ko waral mooy fi nga jóge ak fi nga yegsi parce que nit dafay am objectif mhm, mhm. yàlla li mu téye ñaan joxewu ko yitte moo koy joxe la ndax ñaan sax fajul aajo mais day dëgër a yaakaar yaakaar gu dëgër nag mooy faj aajo moo tax yitte rek la yàlla laaj nit ki parce que nit ku nekk néegu lu mu doon la lu ñëw rek ci yow la voilà sama bàyyi dafa ma daa wax yàlla dafa am fayda bëgg ko am fayda ma ne ko lu na ci boo da lay yàqal indil lu mag ndax am naa lu mat waaye mhm. dalay yàqal ndax xam ni noonu nga tolle sa bopp mhm. loolu mooy waral bi nu defee théâtre ba toll ci xam ni nag politique yàgg nañ ci mais mhm. weesu nañ ci di topp ci ginnaaw kenn ñu taxawal sunu mouvement jóg jot na ca jamono bële mu am lu mu laajoon muy fësal li fi i def merci Macky jamono bi nga xam ni président yàlla dogal na mu am kun fi teg ñu créé waat beneen slogan mooy du nu romb li fi Macky teg est-ce que jàpp ngeen ne Amadou Ba fait le poids parce que man dama gis ne que dafa manqué carence politique maanaam amul combativité maanaam du xeexkat ci politique. waa xam nga tey am na am na am na charisme kilifa yoo xam ni euh, li koy génne mooy selon ko li muy incarné. Mm. xëy na poste yi mu jor a jaar yëpp tekkam gii la laaj. Mm. mais tey comme jox nañ ko mu nekk un leader. dina am leneen lu mu génn lu bees loo xam ne nit ñi den ko découvrir. mais dirigé woon na seen campagne yi passé euh, législatif yi ñu passé te teewul carence boobu ak combativité boobu gis ñu ko ci moom Alioune Mbaye. waaw mais ba tey bokkul xam nga tey. Hmm. législatif tey nit ki c'est privé. Hmm. maanaam benn quartier la mën na xëy na am na yoo xamante ni mën na ko bañ a jaral parce que ñoom koy sekkal. Mm-hmm. parce que Amadou Ba yàlla daf ko defal charisme bi nekk ci président Macky Sall ci moom rek nga koy gisaatee. Mm-hmm. te dafa am taxawaayu kilifa. Mm-hmm. beneen bi dina am benn wéttal parce que président ku mu fi teg moo lay campagne al. waaw ah, wax na ko démb. voilà ku mu fi teg moo lay campagne al. léegi nag euh, ñaari joññante complicité boobu parce que énergie c'est partagé. Mm. ñaar bu nu joññantee comme li ma sàkku li tax nga ñëw parce que mm. xam naa li ma ci mën a jëlee mm. xam naa fan la ma mën a yóbbu si sa si sa côté public noonu it lay demee ci mook président ba incha allah dinañ gis Amadou Ba bu bees sàq mais quand même nomination wala boog paluk Amadou Ba une division au sein du parti ndax mun nañu wax ni que APR bokk na ci rare parti am toog nañ ci pouvoir presque douze ans musuñu def congrès pour jiital kenn loolu di benn. ñaareel bi parti dafa leen ba am leader problème leadership maanaam numéro de amuñu ko woon mën nañu wax biir APR. Mhm. tey ko ci mel ne Aly Ngouille Ndiaye démissionné na. bind na lettre ku ci mel ni Mame Boye Diao dafay demal boppam. Mhm. gëm nañu ku ci mel ni ne daaw Daouda Diallo jamono du neex ba mu ànd ak ki nga xamante ne que moom mooy moom mooy euh, Amadou Ba. Mhm. déchirure boobu ak à l'heure actuelle. est-ce que baax na ci parti. waaw bu ñu sañoon ñoom ñëpp ñu daje. te pour man li ñuy li ñu waroon njukkalee président de la république. Hmm. mooy ñoom ñëpp ñu bàyyi xel ni ku fi Macky teg ñu ànd ak ñoom xam nga lu tax. Hmm. président tey dafa dafa dafa dafa denc ay bëgg-bëggam denc ay ambition taxaw devant les sénégalais ci lu mësul am te xale la ñam pouvoir nga gis ni mu neexee mais bu fekkoon dafay def intérêt personnel du taxaw ni moom du dem élection yi passé hmm. kon bu taxawee wax ko. te ñëpp gis ko rafetlu ko pour man ñëpp liñ ko waroon njukkalee mooy kenn ku ci nekk denc sa intérêt personnel warta am choc des ambitions. ku nekk mm. denc sa intérêt personnel comme ni ko président defee ni ko koonu àndal moom lay topp parce que tamit xam nga Sénégal du nu bàyyi xel lenn coalition bu bu bu gagné gouverner ba jusqu'à les fins déggoo benn histoire ci bii la ma sàmm te nag waa tey jii mais PS mi ngi ci Mm. parti bu mag la. AFP. AFP mi ngi ci. Mm, mais ñooñu ñooñu ci ñooñu lañ doon xaar sax ñu siisu. comme mm. ñoom ñoo mën a gore. ni président falal nu te bu dee ci mag Moustapha moo mag. moo njëkk a ñam nguur mënoon na siisu. AFP tam kii euh, PS noonu. mais comme ñoom ñoo mën a dëxëñ seen i intérêt personnel ni président falal ñu ngir ñu dajale njaboot gi def continuité pour réew mi jëm kanam kon njabooti Macky Sall it waroon na noo mën a rus. kenn ku ci nekk di génn bu dee nag du extra bu dee du. bu parce que dafa nekk législatif bi bi ñëpp demee ñu coowaloo mais au finish. dañu voilà parce que politique tamit dafa doy waar. Hmm. tey mën na nekk stratégie boo xamante ni parce que bu nu fàtte ni Sénégal deuxième dafay am. Hmm. mën nekk stratégie boo xamante ni ñoom dañuy génn. waaw parce que bu ñu demee deuxième tour ñu mën a dajalewaat. Hmm. xam nga tamit loolu lépp daf ciy nekk. parce que tamit politique moom moom lu ci bari ñu ngi noddu waaw ñu baal ñu rek noddi gi moo taxoon ak euh, dagg émission bi jug julli ji euh, dañuy revenir nag Alioune Mbaye mm-hmm. da ngeen ne stratégie la mm-hmm. d'accord stratégie bu PA la mm-hmm. mais face à un adversaire de taille tel que Ousmane Sonko bu leen fàttali que élection yi ngeen jëm Ousmane Sonko ngeen di jàkkaarloo am miniature tey ku mu soutenir est-ce que njortu leen ne ko kooku mën a gagner non xalaatuma ko parce que Ousmane Sonko déjà amatul ñoom déjà et ñoom ànduñu sax àndu bu tax nit ñi di bàyyi xel parce que ñoom ñu ci bari ànd bu yàlla taxul la woon maanaam ñu ci bari ñu ngi woon ci ginnaaw Ousmane Sonko te topp ci ginnaawam taxu leen woon a jóg. da nga defoon ànd intérêt la. non si parce tey politique daf fiir ñoom nee nañ waaw Ousmane ba ñëpp bàyyi woon ko xel ñu ànd ak moom pour suuxal ko boo xoolee ñoom sax ñoo ko suuxal. Hmm. beneen bi stratégie boobu nga xam mën na nekk parce que élection Sénégal lu ci bari. Hmm. deuxième tour lay dem. Hmm. te ku ci deuxième tour mën na noo dajawaat yàqalaat ko Amadou Ba mu doonaat sunu njariñ parce que gis nga tey Mame Boye Diao nekkul woon ku ku président investir. Mhm. mais yëgoo woon na ci ak président ci dem Kolda ba tax mu gañe maire bi soutenir. foofu kon est-ce que bii demewul noonu est-ce que yëgoowul. mën na nekk parce que politique moom. politique moom li ci biir moo moo moo ëpp rato gumba la. Mhm. moom moom. mais dañu gis Aliou Mbaye day dóor Sonko ay xeer rek lan la idéologie moo la neexul wala na jàpp ne dañu yor doxalin boo xam ne neexul. waaw parce que mës xam nga en tant que moom Seydina Ousmane amuluñu amuñu ci moom benn haine amuñu ci parce que ñun doomu aadama dañ lay wormaal. Mhm. rawatina Sénégal dañoo am taarix ku tuddee sa sëriñ wala ñu tuddee sa wayjur te xam nga ni noree ni sunu sëriñ la. Mhm. moom mu tudd tur woowu. waaye cest à dafa am loo xamante ni euh, dama dem ba gis ko xam ni nax nit ñi amul sens te réew mi maanaam bu nu wax bu jotee noppi sikk la te ku mhm. seetaan rek. ba dara yàqu yow complice nga parce que danoo Sénégal nit mën na wax lu mu lu mu lu mu mënul mais kenn mënta jëf loo mënul hmm. tey mënoo ñëw même tey ci mbër il faut nga nangu ndaanaanu nit pour mën ko daan mu mën a safe hmm. tey mënoo ñëw ñu ne président lu mu fi def baaxul et puis yow ci sa ci ci sa ñëw ci leen gis ni cest à mais yàlla bi mu nu bindee ba tey chaque jour dafay am ñiy gëm li ñii gëm li am na ñoo xam ne yàlla gëmuñu la hmm. yàlla nangu ko ay nit dañuy bokk ndey ak baay kii nekk Tidiane kii nekk Murit kii faral PS kii faral PDS mu nekkoon lu rafet nekk doom bàjjen doom ñi jaay hmm. mais nga ñëw bëgg ñu ni sax far force nit ñi dana war a faral Ousmane Sonko man nag man nekkuma ci wax li nit ñi bëgg man damay def loo xam ne bu ma tëddee sama conscience tranquille man kenn hmm. du ma forcer lu ma bëgg ci laa jàngat ma xam ne yu bari dañuy nax nit ñi hmm. parce que ñii ñoo daje woon ci moom mooy ki nga xamante ni intérêt personnel am moo ko wéer ñu déggoo ci pour bu yéegee mu doon milliard hmm. ak koo xam ni dañ ko naxee loo xamante ni bu sañoon mu am ñu naxee ko ko ci waxtu mënul nekk mooy changement euh, changé kii nu mu tuddati hmm. dañuy changé li fi nekkoon te loolu hmm. ci wax yomb na mais ci jëf yombul changer le système quoi mënul nekk xam nga kañ lay mën a nekk Sénégal gépp mànkoo woon bëgg ñu changer système bi ñu ne fii ak 50 ans dañuy bi ñu ne fan lay tàmbalee ñu ne ci jàngale xale yi mm. nañ leen jàngal li nu am ci mag ñi ñu ne fan lay tàmbalee ñu ne nañ jëli ku mel ni sëñ Muntaxa jëli sëñ Babacar Sy Mansour ak yeneen xalifa yi ñu fexe ba ñoom ñu jox leen budget seen taalibe yi ñu bayal ñu ceeb mm. nangam ak nangam bu ko defee ñu daje mais xëy benn ñaari mandat kenn xamuloo mosoo nekk ci gouvernement nga ni da ngay changer système bi mais mënul nekk mais est que tëj Ousmane Sonko tax na ngeen gagné tu penses waaw non xam nga tëjuñu ko nag yoon moo ko tëj yàlla na ko yàlla génne ndax kaso kenn du ko yéene kenn hmm. mais politique moom da ngay liggéey rek yàlla moom mooy fal képp ku war a nekk nguur mais jàpp na ni li fi président def ak li ma for ci bay ni mandat bii di ñëw

tey bu fekkee da nga ni indi ma defar kër gi buur géwal nga ni ma defaral néeg bi man bala maa wax dara war naa mën a defar néeg bi ba boo gisee sa xel dal nga war mën a jox kër faloon de man gisagu dem ñan fa faloon maire ñi ngi yuuxu ñi ngi bëgg a dee parce que ku mësul nekk conseil municipal ko maire wax dëgg yàlla du xam di xew léegi nag comme foofu lan ñam neexul bu mos neexul sàppali du neex mhm. tey mënoo jël maire nit ñi am problème ñu bëgg la jox lu doy ni Sénégal nit nag il faut que ñun ñu nabil mais Alioune Mbaye nu muy jàppale président sans moyen Alioune Mbaye kenn dimbaliwu ko joxuñu ko moyen nga yor mouvement bu toll ni bi nga yor ak li nga am ci mbooloo mhm. ci naka ngay dérouler yow sa feuille de route pour jàppale président moom loolu moo ma jaaxal waaw parce que dafa am lu ma jàngee ci Cheikh Ahmadou Kara mooy tool sax buñ ca duggee dañuy taamu soññaan ga mhm. parce que pour man politique un plus deux égale un la mhm. il faut ko nga ñafe tey doon naa dem wéeru ci benn nit mu lay cofal mais du am sens damay bëgg ma galleeru mu metti ma am expérience parce que bul fàtte ni expérience moo palmarès ñooy am ay coono yu dajale la mm-hmm. moo tax dafay metti trop parce que surtout banlieue da ngay ñëw nit demande la nangam da ngay ñëw maa ngi gërëm Cheikh gay fan yi dafa am benn femme bu ñëw euh, ay veeram veerum mu dam mënul dox mu job te bi ma koy wax wallaahi xaw ma sax fan laa koy wutee mais dama dalal xelam ni ko yàlla baax na boole kook audio ma am ñu ma ko wax far may génn maa ngoom mii ñoo ànd ma dajeeg Cheikh Gaye wax ko ko mu ma suba ma may la ay veer ñu may ma veer ma jox yenn saa yi ordonnance day ñëwit noonu ngay taqale suñu gars yi ñu dajale parce que tamit loolu moo nuy may. bu ëllëgee xaalis ci politique. ah xaalis dugalul la ci politique. non dama ci am ay dama ci am ay ambition. parce que hmm. wax naa la sànq ni la nit ku nekk néegu lu mu doon la lu ñëwul ci yow la. àdduna hmm. kenn moomu ko. yàlla moo ko moom ku ci nekk sa waajur nga représenté. Hmm. maanaam oto sax bu amee matricule dafa war a xool li muy def ngir identification. beneen bi koo fi gis mu am dara rek bett na ko. tey nag pour pourquoi pas ñun ñu yàgg a dund ci social. bu war a dugg ci politique pour am ci taxawaay parce que dafa am benn kilifa goo xamante ni euh, mag ñi dañ ko woo bi muy dëkk Senghor ni ko kii mënoo ko gañe sa baay moo ko ñaanal sa baay sëñ Fallou ak sa baay sëñ Babacar mm-hmm. mu ni leen waaye damaa bëgg mu xam ni góor a ngi ci réew mi mm-hmm. tey ñun théâtre bii ñu nekk am na ci côté maire yi yoo xamante ni aar mm-hmm. moo ko moom culture moo ko moom tey am na ñoo xamante ni ñu ngi kaas te xamuñu nii def ba jël ko Mhm. tey ku dugg ci politique dina nu permettre am nañ benn projet bu tudd boo xamante ni dañuy dajaloo def séminaire jàngal troupe yu mhm. ndaw yi pour ñu xam lan mooy seen taxawaay ci wàllu administratif ci kayit ba li ñuy bénéficié wu ci maire bi ñu mën ko jël mhm. parce que tey ngay war a uti kayit pour mën a jël sa subvention doo ko def mais nga topp maire bi di daw mu lay may ay cinquante mille nga di ko xas fekk yow am na loo xamante ni yaa ko moom mais tey am na ñoo la ko bëgg wax te tey man bu ma ci duggee ñu xam ne seen collègue xam nga politique fii ak nekkoo comme ñoom am na secret yoo doo ko xam tey am na ay maison de production yoo xam ne artistes yi ñoo ko war a yoral seen bopp. Mhm. parce que métier bu yàqoo dañ cee dugal ko ci bokkul. tey am na koo xam ne dafay ñëw maison de production bi business la koy jàppee yoonam newul ci continuité wu artiste bi. Mhm. tey da ngay xool ñaar benn film nga gis ci vingt sponsors. Mhm. artiste principal bi mënul fayeeku dix millions. lamb ji lu fa def xaalis. sponsor sponsor waa léegi lan moo tax ñun mënuñu yeewu ci côté boobu léegi yooyu yëpp nag buñ ko dajalee tey dinañ ko boole suñuy programme yoo xamante ni tey bu nu amee financement dinañ mën a xool artistes yi nga xam ne am nañu ambition ñu fexe ba nu am seeni maison de production mm-hmm. ba ci mouvement bi nekkul mouvement politique boo xam day dafa nekkaale amaale maison de production boo xamante ni mm-hmm. ku ci mënul woon caméra ñu formé la ku ci mënul woon nangam ñu formé la nga xamante ni dinañ am kees goo xam ne duñ dépendre ci Massamba duñ dépendre ci Mademba mm-hmm. ba élection maire yii di ñëw incha allah ñu xëccoo ci Kouthia mhm. liggéey nga ak moom mhm. eh, fin biir TFM mooy finalement jugee na fa mhm. après ci ay calomnie wala mën nañu histoire ojo moom ak Amina Poté tey ñu ngi demante ci yoon tey ba war a dem tribunal war a wuy ji Aly Mbaye situation boobu naka la ko dundee waa metti torop parce que li tax mu metti mooy nit bu fekkee say sa nit la ngeen ànd 2012 ba léegi maanaam mu leer la ni kii heure bu xëyee li muy concentré mooy nit ñi bëgg bu demee ba li naqari nit ñi jóge ci moom moom moo ëpp naqar sax ke ñi mu dal mhm. beneen bis euh, Amina Poté du sunu jigéen di mbokku taalibe yenn saa dama koy wax danga mel ni ku Cheikh Ahmadou Kara Mbacké nooree ni yaar parce que ci waxam ci léppam mhm. ba man sax waxoo woo naa ko ni ko nanu jéggal pelante yi jaru ko parce que tamit it buur mhm. est-ce xam nga ni yàlla dafa compliqué te naqaree xam gis nga tey boo jugoon di defal nit lu baax da ngay dégg sénégalais chaque jour di nga dégg ci sénégalais aw ma jë ku ma defal lu baax ndàngam. Mm-hmm. loolu amul xam nga lan moo am da ngay jël buur mu am ay ambition nga dimbali ko ci léegi yàlla bala laa fay li nga defar buur dalay natt ci buur. Mm-hmm. xool ba xam yow da nga ko def te yàlla tax wala danga nga ko def ngir poñee ko. Mm-hmm. léegi nag natt boobu di ñëw nga xam bu jàllee yàlla nattal la natt boobu la nit naan aw ma jë wala nangam. moo tax mag ñi xamoon bu leen yàlla mësaan nattu dañuy bég loolu moo dox ci diggante mm. Kouthia ak Amina Poté moo tax mm. Amina Poté bu comprendre dafa mm. war a baal Kouthia sax ut lem gu bari jox mm-hmm. Mm-hmm. dafa war a baal Kouthia ut lem jox parce que yàlla dafa naqaree comprendre ñu bari ñu ngi ci féey ci géejam te comprendre lan mooy yàlla mm-hmm. moo tax beneen bi Sénégal il faut ñuy comprendre ni xuloo faaw mu am mais il faut ñuy am ñuy jubóole Mm-hmm. buur léegi jubale amatul par parparloo moo xew bu ma xuloo buur kenn ki farak buur day yaakaar ni xam ba ma mooy bégal buur mm-hmm. ki farak man loolu lay yaakaar te amaana bu jugoon dox ci jàmm juboo mën na am parce que ñaar ñuy ànd moom tàqalikoo amul njariñ ci kenn par man déglu naa Kouthia wéetal na télé bi mais wéet na am na lu ko naqari man dama gis ni que poche bi fa Kouthia daan def ba tey mu nga fa est-ce que ça ne serait pas préférable que mu delluwaat à fii beneen bi mm-hmm. émission bi Kouthia moomatu ko woon TFM moomatu ko woon askan wee ko moom buur xoolal ki nga xamante ni mi ngi ba fongolo mi wala mi ngi États-Unis wala feneen wala këram ku ci mel ni Serigne Babacar Sy Mansour toog naan man waaw Kouthia Kouthia moom ay bëgg waroon nañ ko rusee kooku mm-hmm. tey koo xam ni 6 heures Kouthia rek la doon xool nga xañ ko ko il faut mm-hmm. télé yi ñuy xam ne li ñu imposé Sénégalais yi moomatuñ ko mm-hmm. parce que am na koo xam tey Kouthia drogue la ci moom mu toog 6 seetaan ko xañ nga ko waa buur ki nga xamante ni danaan ñëw ci Kouthia Show am ci dépense bu mu yóbbu këram kooku duñ ko xool ah, parce que tamit diggante lu mu jege jege dog rek defar ko gën. Mhm. te lu mën a xew ku ca service na Sénégal ay mhm. at. Mhm. nit nag Cheikh Ahmadou Kara wax nit mën na wax lu bon wala mu jëf lu bon te du bon. bon fi mu yegg ci nit nit xamu ko. erreur dafay am te erreur moom bu amee faaw ñu yedd nit. waaye nag doo ko doo ko xëcc sànni ko xam nga peñe gura tey yi sànkar mën nga ko dindi mais ay nit. doo sànni da ngay indi waxtaanaat parce que tey bu ma dundee ba génn ci boo gis dootuma ko doon layandal. te Kouthia amul père de la man à l'instant même lay dundee. mi ngi noonu la question que mi ngi noonu te tey amul lu koy wax. parce que mm. lépp loo koy wax tenir na conscience bi moo la ci ëpp mm. xam-xam. Mm. kon boo ko indiwaatee du defaat la mu defoon. te erreur faa am. kon laa yow Alioune Mbaye da nga gis nañ ko jéggal mu dellu. bien sûr nañ ko jéggal. ci sama làmmiñ maa ngi koy jéggalu. parce que ñun ñëpp ñoo tooñ sa nit moom lu ko dal rek ñoo la sëñ bi daan wax ne bu ma doon tagg kenn jàppal ni yéen ñëpp la bu ma xasee kenn nit yéen la mm-hmm. kon ñun ñu ngi jéggalul ko caa encore une fois ak lu mën a xew ñu roy jikkoy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wanaaf xam nga fii bari na ñu yox sopp nabi te pourtant jikkoy nabi non non sopp nabi lan <laughs> dëgg la parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam màkk gi du buur fi mu ne nii yow ku la mm-hmm. mayoon billet màkk dootoo ko fàtte mm-hmm. ku ma may billet màkk dootuma ko fàtte mm-hmm. mais màkk lu tax mu am jéggalug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul barki démb màggalam gi ah kon nit ñi jéggal naa sumay noonu waaw mu ngi noonu kon dafa am loo xamante ni il faut ñu di ci roy kilifa yi te yàlla li tax mu bëgg euh, lu tax mu mu bind fayu te bëgg ko mooy parce que xam na ni muñ dafa metti waaw waaw bañ na ko ba ne su ma ñàkk day mooy ba pare ku nekk bëgg nga ànd ak yàlla mhm. yàlla ñan la àndal bi mu ne inna allaha ma saabiriin comme way muñkat yi waaw kon muñ neexul kon mhm. muñ day yéege nit mhm. et puis képp ku muñ la nga muñ waxuma la yéege gi mu lay yéege waxuma la tuyaaba ja nga ci am mais di nga ci amaat expérience moment bi ngay muñ moo tax kon nit bu defee erreur dañ ko war a pardonner te ku caa wax dëgg yàlla nit ku baax la parce que nit koo xamante ni amaana bu dul woon a ku caa mën na dund du dugg TFM ah, mu jaar Kouthia ba dugg TFM kon nag nit moom du def benn erreur rek ñu xëcc ko saani mais nañ ko pardonné jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam nit da daan def lu gën a garaaw hmm. ñu baal ko mu ñëwaat nit rey na mbokkam ñëw tuub mu jéggal ko te day hmm. dem ba ñooñ dañuy bokk ci histoire hmm. lislaam parce que nit bu dundee dara ba génn ci day loolu maanaam Sénégal fi nu war a pardonné nit fa lan fa koy sànnee. Mhm. tey am na looy def buur ba mu metti buur bu la buur jégalee da nga yaay ñëkk nekk soppe buur bi gën a mag parce que dootoo bëggati def dara lu ko metti mhm. moo tax dañ ko baal kilifa yi fi nekk ak communicateur traditionnel yi ku ci mën a dox nga dox ci mhm. bu ko defee ñu baal tey suñu bàyyi alaaji Mansour mag la am na yoo xam du ko xam mais ñoom bekaay ñoom garmi ñoom nanu jël relève bi lépp lu nu gis ñu jóg dox ci te yàlla tax parce que loolu mooy mission wu géwal Ablaye Diop xaas dama koy gis chaque jour muy def lu mel noonu. te mm-hmm. c'est très important. Mm-hmm. tey gis naa ko mu jubalewaat Mathieu. Mm-hmm. ak Lac de Guiers. ak Lirou Diane ak Maguette Maguette Diane ak Khadim Ndiaye waaw ah. te Mathieu ak Lac de bi ma leen gisee ñu ko kontante sama yaram dafa daw. Mm, nga xam ni yàqante noonu lañ yàggee ñoom ñaar. waaw man daje naa ak mm. ñoom kër Ablaye Diop xaas. Mm. ñoom ñaar ñoo ànd. benn film bu ñu doon duwee. kon ñooñu bu wóor na ma ne yàqamti woon nañ ku ñëw jubóole leen malheureusement c'est grave. jiboole amatul malheureusement Aliou Mbaye balaa ñuy tàggoo. Mhm. am benn sujet bu ma naqari. Mhm. mooy suñu benn euh, rakk comédien la ñu wax bu ñuy wax euh, Jean Paul mhm. Dalméda. di un jeune boo xamante ne que il a vécu poliment. dignement ci carrière am wax dëgg yàlla yonent bi kenn mësu ko xamee wala nga dégg ko ci dara lu ñàkk fayda. tey yàlla moom ko. ñuy jaale ay mbokkam. Euh, dégguñ ci benn coowaan. Ah. dem ba ci fin bi ñu commencé ci dégg polémique boo xam ne mu mosuñu ko xamee Sénégal mooy chrétien jullit amul droit mais yàlla na ko yàlla yërëm wax boobu nag jur polémique ba man dama naan sax tooñ nañ ko moom ndax moom bëggoon na moom ni meloon boo seen ñu entré ko man maanaam enterré ko en paix tey mu jur wax ci débat débat yu métti ci sphère médiatique bi waaw loolu lépp yërmande sax lay taxawee ci moom beneen bi gis nga yàlla. Mhm. du nit. Mhm. est ce que xam nga ni loolu maa moom joué nañ ko. mu yokk jël médaille. barki yonent bi joué nañ ko ba moom moo génne ci làmmiñam ne lakkum diini ku wala diin ma naan ko sunu diine moo gën sa diine. Mhm. mu naan Sénégal waruñu jëf loolu man am naa ay mbokk jullit ni Sénégal danoo yàgg ànd ci jàmm ñu mel ni yéen ñooy yàq Sénégal ni ma ma ko sunu diine moo gën sa diine mu ne ma sa diine waxul loolu père juum nga ma ne ko la mu ne ma lakkum diini ku wala diin moom moo ko wax. kon tey bu ñu demee ba ba pare day nuru polémique te juru ko te li ko indi mooy xam nga dem gi dafa metti mm-hmm. demin wi metti parce que koo xam ni xale la trente cinq ans ba pare ci film bi nga nekk nga nekk ci ku am présence macha allah. Mm-hmm. boo soloo macha allah. Mm-hmm. boo joué macha allah nga xëy rek dem tension boobu dafay metti ba nit ñi duñ jot a déglu la vrai sens. kiy wax beneen bit xam nga yàlla moom mooy yàlla. tey buur bu lu ñëwee ni la lu yàlla wax ci nàngam moom li yàlla wax rek nga mën a wax sans pour autant viser kenn ah. déedéet man nee naa Oustaz Modou Fall bi mu tontoo dafa wax rek li alquran wax waaw mais waxu ko jàpp ma ni pour vexer la famille léegi nag ñi hmm. tont it ndeysaan ci naqar lañ ko déggee rek hmm. ñu maanaam dañoo juyoo hmm. te léegi xam nga TikTok ak yooyu day yàq mbir parce que da gis koo xam ne interview TikTok am moo tax day jaxase ay wax mais ku ne xam ne ni Oustaz Modou Fall bu yoroon àjjana ñëpp dugg wallaahi Zampo lay njëkk a dugg. Mhm. mais nag yàlla moom xam amul seeka amul cest à mhm. léegi nag ñoom danoo am mission ñoom ustaas yi mooy bu ñuy jàngalee ti diine xam nga Sénégal souvent suñ jàngale diine àjjana sawara rek la àjjana sawara. Mhm. te loolu yàllaa ko moom. waaw te bari na lu yàlla di jàngale nekkul àjjana wala sawara mais sunu dund la ak suñu dundin avant ñoo génn àdduna. léegi nag bu ñu demee ba tey Sénégal ñu toll fii ak Sénégal ni mel ñu am polémique ndax jullit dina ñaanal katolik kon yaa problème ci kiy jàngale ak ci ñiy dégg ah. léegi nag dañ koy jël positivement bañ ko jël négativement mm-hmm. mooy delluwaat ginnaaw xam ni naka lañ mën a def ba loolu leer du jar benn polémique bi parce que tey oustaz Modou Fall wala oustaz Mouhamed Mbaye dañ leen a laaj ñu wax li yàlla wax beneen bi yeneen oustaz yi mm-hmm. gis nga sa nawle bu waxee dara te nga xam ni dëgg la mm-hmm. bul jéem a wax luy tax commentaire faral la wala ñu saago waaw gis nga bu ñëpp tontu woon ni ñi liy wax dëgg la rek du metti mais boo nee waaw yàllaa ko wax mais seeka yaa ngi indi beneen affaire parce que am na benn Alioune bay boo xam ne xamul te dem gi metti na ko day jéem a sànni ñee xeer faral la te du yow du kii ñee waxuñu seen waxi bopp neewul sama maam a wax neewul sama papa wax dan ni ko lu yàlla wax mu ne yàlla moo ni jullit waaw loolu sa waay mm-hmm. jarul polémique mm-hmm. te xanaa xam nga ni nangu googu ñu koy nangu yërmande la ci ki dem mm-hmm. parce que nag ay yàlla moom moom nga julleeg nga ñàkk julleeg àjjanaam gi moom moo ko moom jaam ñi nan leen bàyyeeg suñu borom waaw yàlla mooy xool ku ko neex mu yërëm ko tey ah. amul kenn ku convaincre yàlla ci jaamu ko àjjanaam coobare la safara coobare la amul kenn ku convaincre yàlla ñëw ni yàlla maa def nii maa fay ma amul ku ko def daanu mhm. kon moom mooy faali li maa yurid faali li maa yurid lay dëgg kon nag oustaz Modou Fall waxul lu aay ba pare waxul pour dugal akim àjjana wala wax pour dugal ko sawara dafa wax li yàlla wax mhm. akim waxul lu taxul muy wax keneen taxul muy wax mais déggin yi ak neer yu tàng ak naqar wi day tax nit ki voilà ba pare mm. ñiy jottali ñoo yàq wax mm. gis bari na kuy wax bu demoon dégluwaat li oustaz wax dana ah, ok mais nit a fay jógee moom it am naqar du déglu baax ni waay ñii dañoo nangam te fekk ñun li nu mës a dund mooy dialogue islamo chrétien boo xam ne kenn mënu ko dindi bu rafet bu rafet kenn mënu ko dindi mm-hmm. ñuy ñoo xam ne dañ leen a yar mm-hmm. ñoo xamante ni doo dégg mukk ñoo wax lu ñaaw wala ñoo ko ñu Cheikh Modou Kara dañu daan yónni bee leer googu ñuy ñuy bay alméeri mm-hmm. ñaatu yoon nga xamante ni muy lu rafet loo xamante ni macha allah kon nañ delloo ci xel yi rek maanaam ci moment bi nu bi nu ko waxee mhm. la naqar am rek ba nit ñi bàyyante wuñu xel mais bu ñu bàyyantee xel xam ne wax ci aayul bu ñu bàyyantee xel xam ne wax ci aayul mhm. nee naa Aliou Mbaye man comme jël naa côté entretien man moom xam naa ne am naa problème ah. ndax keneen keneen ku booy bëgg a jëlati diñ dinañ ko <laughs> fa xel fa fa xel ba buur ñëw déet Aliou waaye nag lii kay sama mbagar feggu la bu ma ci kenn roy nag <laughs> Aliou Mbaye lay waaw santaat yàlla bu baax di la gërëm ndax wolof dafa sopp noppaliwu mm-hmm. te yow yàllaa dogal mm-hmm. nit ñi soppal la seen bopp parce que sa dëggu mm-hmm. gis nga buur nit ñi ñu ngi yàqu ci commentaire te teer la jëm te bari na kuy commentaire xëy na sax na mu mel neexu ko te gis nga boo seetloo dara ci commentaire ki njëkk a bind li mu wax la ñëpp yi wax te ku ci nekk bu bindee ay mbokkam la woowi mm-hmm. ki njëkk a saaga ay mbokki saagakatam la woowi ñëpp ay saaga mm-hmm. ki njëkk a wax oh macha allah ay mbokkam ñu baax la woowi ñëpp ay <laughs> te ku am kilifa du gàggantikoo ci mbedd léegi nag nit ku nekk da war looy wax wax kenn du ci leble kenn du ci fay bor wallaay war looy wax mm-hmm. yàlla rekk tax boo tëddee sa conscience tranquille nga yemale mer du nit ñi ak seen merci parce que bari na la ko wax merci dafa tombé nga wax lu ko gisee ak bu ma la gisul mm-hmm. di nuyit sunu soppe ba sëriñ Mamour Seck sëriñ yow <laughs> macha allah dangaa ngaa teel a comprendre lu yaatu kenn du ko xatal déedéet bi ma ko soppee wax la ko rek da fexe ñu gisante mm-hmm. moom it muy nit ku baax mm-hmm. di ku yànj macha allah di ku bari xam-xam yàlla na ko yàlla dooleel te kàttanal ko di nuyu bu baax a baax a baax sunu leader yi nekk ci Pikine di wax nag wax am na mission am na parce que tey président Macky Sall ñu ngi doon xaar mu tànn tànn na mais tànn ne nit ñi wàccaat ci base bi mhm. te pour man mhm. nit du bàyyi ba campagne ngay dem say nit waaw loolu campagne da ngaa war a seeti ka nga miinoon mais kenn mhm. du bàyyi bay campagne di xam nit loolu de loolu de yëpp sa maanaam yëpp doomu aadama yi la sax nag mi ngi noonu boo ñëwee dañuy déglu sa musique lekk sa xaalis dun la ko waaw yëpp leen la sax de mais moment bi ngay waxtaan ak ñoom bu campagne jotee ña nga xamoon ngay dem seeti mi ngi mel ni mbër bu am komba mbër warul bàyyi ba am combat di entraîné waaw mbër day préparé combat préparé combat nag taxaw moo koy waral ndax da nga la nga teg ki nga war a bëreel xool mm. foo ko war a jaar mm. pareil comme politique bi mm-hmm. di gërëm bu baax ngom mi nga xam ni ñooy ànd mm-hmm. wax dëgg yàlla muy ku baax mm-hmm. Pikine xam ko macha allah mu di ma dimbali ci Pikine bu baax ñuy dugg ci nit ñi di waxtaan ak ñoom parce que dama gëm ni politique da ngay dem wax ak nit ñi pour convaincre ci li nga ne dem ci base bi aller vers la base voilà vers les populations chaque jour dañuy lëndëm du wax ak nit ñi wax ak ñoo xamante ni macha allah. Mm-hmm. liñ doon xaar mooy lii xam naa ni fii ak fan yu gàtt dinañ woote benn sargal bu mag. Mm-hmm. boo xamante ni dinañ wan président ni slogan bu bees bi mooy duñu romb li fi président teg. Mm-hmm. bu ko defee ànd ak moom di woo képp koo xamante ni da ngaa àndoon ak président Macky Sall nga bàyyi xel ni dekkil ngor la tàmbalee woon. moom la tëjee walaay dekkal ngor la tàmbalee dekkal ngor la tàmb moom la tëjee. parce que dekkil ngor googu moo ko permettre ba mu ne bi wax jotee mu ne du ma wax mukk loo xamante du ma bàyyi mukk loo xam man maa ko waxoon. indiwaat dekkal dekkal ngor nag yoon la kon comme jiitu na ci ña waroon bàyyi di waa PS waa PS ak waa APR toppaat ci wax dëgg yàlla képp ku njaboote président Macky Sall nañ ci topp bu ko defee équipe mooy gagné ñu gañewaat liggéey Sénégal bu ko defee Sénégal jëm kanam di gërëm Serigne ci am di gërëm El ji Lat Diop mi njëkk a taxaw wane nii Amadou Ba mi mooy profil bu baax bi. Mhm. di nit ku baax du ku bëgg président Macky Sall. Mhm. ba fu waay nekk waaw billaahi ku bëgg ku mhm. tedd ki. barki dem rek mi ngi ma naan Cheikh Ahmadou Kara lu mu wax neex na ma ndax dafa bëgg Serigne Touba. nga xamante ni ñooñu la ñuy wër ci seen présence seen ànd te yàlla tax parce que bii moom ci la président war a ci lay gisee ñu sincère kon ngala ko sargal. ndax li mu jógee yëpp metti na ay nit di yàq réew mi di Mm. kon nan ko soutenir sagal ko li mu def ci réew mi bu ko defee mu xam ne ñam ko defaat jar naan ko Sénégal jëm kanam yàlla na yàlla defal dégg ak topp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam